bonjour tout le monde. Je vais, je vais essayer de faire euh, une petite introduction en français. Je salue déjà toute l'Assemblée. Je voudrais tout simplement commencer par dire que, à mon avis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sous le soleil de Macky Sall depuis euh, maintenant une dizaine d'années, on assiste à cette traque, à cette liquidation d'adversaires politiques et rien n'a changé. Macky Sall est dans la même logique. La seule chose qui change, c'est que nous avons affaire ici à un cheval non partant. Macky Sall est non partant. Sachant qu'il est non partant, il essaye d'aligner une ligne de non partant à côté de lui. Il s'est mis euh, Karim Wade à côté, Khalifa Sall à côté, même si c'est provisoire, nous l'espérons. Euh, euh, maintenant, c'est le, le, le, cas ou bien le, le en tout cas maintenant c'est au, au, au, autour de Ousmane Sonko. On va dire jamais 203. D'habitude on le dit. Mais je crois qu'un cheval avec deux pattes cassées est impossible de prétendre gagner un, un, un, une course avec un cheval qui a ses quatre fers bien cirés. Ce qui nous amène à cette situation de fait. Qu'est-ce qui Est-ce que c'est la, la, la, procédure de Macky Sall qui est de toute façon logique avec lui-même de ne pas vouloir d'adversaire de ne pas vouloir un jeu démocratique, de faire tout pour écarter n'a changé. La preuve, il n'est même pas de nouveau. On, de parler L29, L30. Si ce n'est pas L29, maintenant c'est Il est dans une logique. Il n'a même pas d'originalité. Il aurait pu choisir autre chose. Remarque, remarquez, il a essayé de choisir autre chose. Il a essayé le procès avec euh, cette dame qui maintenant, je crois que tout le monde s'est fait une opinion. Il n'a pas terminé. Mais entre-temps, ils se sont dit à un os, on va s'accrocher à cet os de diffamation. Et comme par hasard, M. Mambaignan, qui hier était content d'avoir deux mois de, de, de condamnation de sursis. Hier, il jubile parce qu'il a six mois. Qu'est-ce qui a changé entre, il y a un mois, la condamnation de deux mois avec sursis à celle d'hier de six mois avec sursis En réalité, la seule chose qui a changé, il faut que l'opinion internationale le sache, c'est le rêve d'une inéligibilité qui, plane sur la tête de, du président Ousmane Je dis j'ai dit un rêve parce que c'est un rêve de Macky C'est au, au Sénégalais de décider si ce rêve sera une réalité ou pas. Ce sera aux Sénégalais de déterminer est-ce qu'ils accepteront que Macky Sall continue ce cauchemar qu'il est en train de nous faire vivre, c'est-à-dire éliminer ses adversaires politiques, ou là, on va l'arrêter, le stopper pour de bon. Je crois que ça suffira pour la version française. Je suis beaucoup plus pertinente en Wolof. Euh, je vais m'en aller dire ce que je pense du fond de mon cœur. li ma bëgg a wax rek mooy di nuyu askanu Sénégal yëpp di wax ne man jàpp naa ni dara beesul ci li xew fii démb am nañu ci nag mbetteel am ci naqar waaye foog naa ni kenn ci ñun nelawul woon kenn ci ñun géntul woon ni itam procédure yi ni ñu leen doxalee que président Macky du leneen la doon wut lu dul lii li mu doon wut mooy lii mu jéem a def démb mooy une condamnation de six mois pour mën a am possibilité bloquer Ousmane ko ci candidature ndax te moom dafa nekk ab genre euh, euh, koo xam ni moom xam na ni bokkul dégg naa léegi ñu ne la ñëpp bokk ñëppay bokk ba mu des moom moom du bokk mënul bokk amul sañ-sañu bokk amul waxtaan bu mu mën a waxtaan ba ñëpp bokk ndax ñëpp boobu moom ta la te moom mënu cee bokk mën na nag doon ñeneen ñi bokk fexe na ba moom comme non partant la ndaxte moom dafa am handicap ñu ne ko yow mënoo dem muy wut nag ay moroom yu mu aligné ne yéen it mënu leen dem comme nag ñoo yem comme ni ñuy wax euh, ni ñuy wax sax xaw ma bukki bu bëggee bu amee lu ko dal day wut ay moroom moom ci tànk yooyu la ne man mënumaa dem dinaa fexe ba wut kaddu yee rafetul moo tax ma yem ci foofu mën naa fexe ba parce que samay wolof xaw naa xóot tuuti mën naa fexe ba jéem a lijjanti ay nit yoo xamante ne moom ñoo ma bokk mbir ci tànk yooyu la nekk dama ni loolu dara beesu ci parce que loolu kese moom képp loolay xalaatam loolay xam-xamam bu toog fii ci réew mi lii bees mooy ñun suñu taxawaay suñu taxawaay mooy taxawaayu askan wi loolu mooy bees te foog naa ne nag sant naa yàlla bi ma gisee taxawaayu yeewi askan wi ak li ma dégg ci ñoom parce que jàpp naa ni fii amul kenn koo xam ni li nga taxawoon démb ci booru Ousmane ko tey bi nga ci taxaw lu toll nii nga wàññi ko ci mënul nekk ndax li tax mënul nekk mooy dañoo am des destins liés li tax mënul nekk mooy soutenir Ousmane Sonko du soutenir Pastef wala nga soutenir benn idéologie mooy soutenir la démocratie sénégalaise mooy jàpp ne kenn Macky Sall ñëpp dafa bëgg a xot leen xot leen bañ nga xamante dañuy loof mu ne leen léegi nag kaay leen ma xool nu ma defanteeg yéen kii nag ba tey dama ni rien n'est perdu parce que ci suñu ay débat il faut que loolu mu leer certes il y condamnation hier mais je pense que ñëpp xam na même bu fekkente ne pourvoi à cassation dinañ ko def fast track ni ko ni ñu ko tàmm di defee foog naa ni ba tey ay jéego mu ngi fi kon nag les Sénégalais ont largement la possibilité de poser des actes avant que cette condamnation ne soit définitive parce qu'il s'agit de ça il s'agit d'éviter d'arriver à cette condamnation définitive parce que tout simplement dafa am luñ fi teg yow daal mënoo rëcc wax la teel mënoo rek Ousmane Sonko daal mooy ki nga xamante ne tey jamono jii bokk ci ñun di suñu candidat comme ñu yeneen candidat yi nekkee suñuy candidat ni ñuy xeexalee suñu candidat yëpp pour ñu bokk noonu lañ di noonu la ñuy xeexalee Ousmane Sonko pour que mu bokk parce que ñun benn kaddu lañu am te ay gor doo ko fi toog coow li nag bare na wax ji bare na mënta ñàkk comme li may wax rek ndaxte àdduna ay nit bu ñu bokkee ndey ak sax léeg-léeg ñu jotee mais li may xam mooy ay nit bu ñu bokkee deret dañu war a rus tuurante seen i deretu morom donc on ne se donne pas des coups entre frères de sang on ne doit pas faire tomber le sang de son frère ça évitons-le et Yewwi Askan Wi et une famille donc nous devons tout faire pour que le sang qui coule soit le sang de Macky Sall et non le sang de l'un des nôtres ça c'est un benn benn benn wax la boo xamante ne kenn su ñu ku nekk daf ko war a wax moroomam parce que kenn su ku nekk dafa war a xam ni lii ñu boole ëpp na suñu ambition personnelle ëpp na suñ ay bëgg-bëgg personnel c'est l'avenir du Sénégal l'avenir de la démocratie parce que comment on peut dire qu'on va empêcher les candidats de Askan Wi comment on peut dire qu'on va accepter un, un, un candidat de ak lépp lu nga xamante ne moom la wone ci parcours am politique nga ne danga ko écarter des présidentielles pour lu neex président Macky Sall loolu mënul nekk kon nag ñun suñu rôle rek ci la ñuy nekkaat mooy alerter mooy takkuwaat takkaat suñu ay sër yi fecceeku ñu fexe ba fasaat leen li nga xamante ne ñaaw la ñu fexe ba defar ko mu rafet parce que fii dara xejagu fi ba fii ñaaw lépp lu lu fi nit ñi gis rek je pense que ci démocratie la ñu nekk. donc li may wax mooy lii euh, Déthié Fall wax te foog naa président Habib di ci ñëw léegi muy ci plan d'action yi ñu jàpp ne nekkul na rek yeewi askan bi dafa nekk ci réactivité non non dañu nekk justement ci processus boo xamante ne on est obligé de poser des actes on de se parce que ki ñuy jàkkaarloo c'est pas un homme sincère. Macky Sall n'est pas sincère il n'est sincère en rien il n'a aucune sincérité en lui parce que manque de sincérité weesuwul nga toog une génération lëmm xool un avenir xool le Sénégal nga ne yow da ngay choisir quelle est la destinée de ce Sénégal là ça c'est ne pas être sincère avec toi-même parce que bu ñu ko ko defoon moom du bokk bu ñu ko ko defoon moom du jiite Sénégal alors on a beau dire on a beau dire ay nitu jàmm ñoo fi nekk ay nitu salaam ñoo fi nekk kenn ci ñun bëggul ay parce que kenn ci ñun balaa ngay dugg ci politique kenn déggu la ci ay kenn gisula ci ay kon ay nekkul loo xamante ne sunu mbëbët la wala sunu yéene la mais que ce soit bien clair on n'acceptera pas il faut que le peuple le sache il faut que les partisans de Ousmane Sonko le sachent il faut que les militants de PASTEF le sachent il faut que tout le monde le sache que li ñuy xeex nii xeexuñu ko pour que dañuy nar a ñëw tey di xool lan moo neex ma samba lan moo neex ma dem on est obligé d'aller jusqu'au bout parce qu'il y va de la survie de la démocratie et de l'avenir des jeunes de la jeune génération de ce pays-là nous nous battrons nous serons debout nous serons déterminés et nous irons jusqu'au bout lu ñu koy dooleel nag mooy ñu jàpp ne benn ennemi nekkul fii ci table benn ennemi nekkul fii ci table benn adversaire la ñu am bu ñu ko fàtte benn adversaire la ñu am mooy président Macky Sall kon nag si les gens ont à tirer que tout le monde se retourne et tire sur le président Macky Sall qui est lui seul coupable de cette déchéance de la justice coupable des conditions difficiles des populations qui est lui seul coupable de la situation actuelle que nous sommes en train de vivre nous nous réitérons notre solidarité bien sûr à Ousmane Sonko et nous disons que au-delà de, cette, de ces procédures par rapport à cette diffamation. Il y a d'autres procédures, mais qu'il sache que nous serons toujours à côté de lui. Je crois que lui, il n'a même pas besoin qu'on le dise, mais que l'opinion le sache. xam ni fii kenn bàyyiwu fi kenn kenn beddiwu fii kenn kenn du fii kenn du fi changé benn fusil d'épaule kenn du fi changé lenn looy doxee li ñuy def rek mooy ca nekkoon ci loolu la ñuy nekk ba tey mooy continuer combat démocratique bi fexe ba ki warul bokk moom bu mu bokk mais ñi war a bokk dañuy bokk par la force te loolu moom ci dara maa ngi leen di remercier merci madame ñu jox kàddu gi président